asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Obla ñu ngi lay nuyu ak waa site leeral xasida ñu ngi leen di nuyu lu bëree bari te di leen sant ci taxawaay bi nga xam ne yéen a ngi koy amee ci liggéeyu toolub sëriñ bi rawatina bi nga ñëwee fii ci Guédé Bousso ci liggéey bi nga xam ne sëriñ Omar Bousso fi nekk xalifa si Mbàkke Bousso mi ngi koy liggéey jëmee ko ci wàllu armée armeel yi nag day armel yo xamne seigne bakki bu so moo fi rëddaloon bopam waxon ci ay kàddu yu am solo boobaak léegi yàgg na téeméeri lu kay manki du bari denc nañ fi it kilifa yu bax ñoo fi leeru ku bax kaang fi leeru maam Cheikh antang fi leeru bakki bu so ngi fi ak ñu bax ñu bekk ñu fi sering bi nag bi mu ci juma ja ak ja ak yenen liggéey ci biir dëkk bi ci la ñëwee ci armeel yi ndax da doon miir bo xam ne na ba noppi jur yak yàqu jamono tax mu war ko yeesalaat miir bo ne dana ñong ngir orme yi ñu fi tëdd wala tax sëñ bi dañ ko yeesalaat salat bi ñu jul ba noppi ci la dem ci sëñ muntaha serigne bi jox ko ci ndigal ngir ñu yeesalat ko liggey bobu nak ci lañ nek ci lañ nek ndax barab la bo xamne moy mooy kër gi mujj ci kër yi julit bu liggey bu nek fi nga yaakar na bo fa dajee ak so borom am fa añ bu la gënal fi nga fi nga bayiko lool nak ci le serigne bi nek and ko taalibe yi ak bokk kan ko nek fa na fa nek nu way mën rek yaag ngi and ko ak serigne bi serigne bi ñu ngi ci liggey bi ñu ngi ci bop ba legi fi ne ñu ngi ci daanaka euh, dernière façade yi ci lañ nekk actuellement muy wetu gannar gi ak lenn ci wetu soobu gi ñoo ci dess ci liggey bi fiñ tollu ni bu loolu wessor rek ñoo ci daldi di bëgg dess serigne bi nak mu ngi ci doon woo ñëpp bàyyiwu ci kenn ndax limu wax rek mom dafa wax ne dafa ngotul da dafa bëgg lepp lu mu liggéeyal sëriñ bu Buso ci tollu serigne Touba ñepp am ci ngeureum tey ak ëllëg ci loo tax mu woo ci ñëpp liggéey bi nag bis bu yàlla sàkk fi lañuy ñuy yendu njabootu boppam gi ñoo fi yendu ak taalibe yi moom ci boppam saa su xëyee dana fi ñëw ba mu naaj mu doog a dellu ci kër gi kon nag mboolem ñi ci jëf sëriñ baa ngi leen sant ñi ci jëfaguti sëriñ baa ngi leen ci soññi te di yéenewaa leen ñëpp nag lépp lu ci waay def rek yàlla na ko sëriñ bi boole ko yéegal ko ci yi mag ñu baax ñi nga xam ne nangu nañ seen i te darajee alhaji Mbàkke Buso ak ñu bax ñi nga xamni ñu tudd ci bir biir wa salam wasalaam waaw ya, alaykum wa rahmatullahi wa hmm yeen wa sit bi ñi wax leral xasida <coughs> comme ni ko suñu kilifa gi waxe <coughs> serigne Mbàkke Buso ñi ngi leen nuyu bu baax di leen sante ci yitte ji ngeen am ngir ñew gëstu li waral liggéeyu kër gu mujj gi nga xam ne moom la ñuy wax armeel yi Guédé te ñuy ñaanal sëriñ bi sëriñ Omar so suñ boroom yàggal ko fi lool te naal yi mu am yéene naal ko ci dëkk bi yëpp ñuy ñaan suñu borom mu defe ko ni mu ko bëggee suñ borom bàyyi ko ci suñ kanam mu yàgg noo jiite nu yàgg topp ci ginnaawam te di ko liggéeyal mu mel ni ko sëriñ bi waxee rek am na ci liggéey yu bari yu jógee yoo xam ne bi mu ci noppee la la la agsi fii ci armeel yi comme ni ko sëñ bi waxe man mii di wax ak yow sama ñaari way jur yëpp ñi ngi ci biir armeel yi ak samay bàjjan ak sunuy doom te itam ni ko sëriñ bi waxee léegi wodd ko ba suturaal ñi fi nekk loolu day liggéey boo xam ne liggéey bu kawe la liggéey boo liggéey bu tegu ci yitte la mu mel ni tàmbali bi yàggut dara waaye pas-pas lépp lum lum lum lu mu yor rek loola day gaaw te liggéey bi day tegu ci aw yoon te itam sëriñ bi yéeneem mooy naal yu fi sëriñ bi bàyyi woon suñ mbakki bu su mu àggale ko ba tàmbaliwaat yeneen ñu koy ñaanal suñu borom lépp lum ci am yéene rek suñu borom daal di ko koy defal mu mu defe ko ni mu ko bëggee liggéey bi nag nun taalibe yëpp sëriñ bi woo nañu ci nañ ci jàpp liñ ci war a jàppe kenn ku ci nekk na ci def lu mu man ak la mu lu mu mënut ndax maa ngi dégg benn xista ci diggante sëriñ sëñ Touba ak sëriñ bu Bousso bis nee na ko laaj na ko fu ngeen toll ci jaamu yàlla gi mu ne ko ñu ngi ciy def luñ man bi mu ko ko waxaatee mu ne ko ñu ngi ciy def luñ man mu ne ko dama bëgg ngeen def ci lu ngeen man ak lu ngeen mënut kon nag ñun taalibe yi nañu féete foofa lepp lu serigne bi nek nañ ci def luñ man ak luñ mënut ndax loolu moy suñu yokkute ëlëk moy suñu ndam tay moy suñu ndam ëlëk kon nak ñi ngi eh, gantal kaddu yi di jéggulu ñëpp tay soñu bu soñé bu baax rek ñaanal serigne bi mu yagg fi lool ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha itam suñu borom yagal ko fi lool momit barke Cheikh Ahmadoul Khadim jëf barke Cheikh Omar alaykum wa rahmatullah leral qasida ñing leen nuyu leen siyaar bu baax tay nak yeena a ngi ci dekk bu tedd bi di Guédé Bousso dekk bi nga xamné serigne sëriñ Mbacké Bousso moo ko sanc sance ko ci ndigal serigne Touba ci ané 17 bi mu fi ñëwé nak lim fi ñëk def moy taxawal fi dara def fi jàkka def fi marché def fi armel yi li sabab loolu nag mooy eh, daara ji ngir di ci gindee ci wàllu eh, diine jàkka ji ñu fay jaamoo ji yàlla dëkku bi ku fi génn àdduna ñu denc ko ci béréb bii nga xam ne mooy bérébu dëkk ñentel bi di marché bi ñu man di fi juggé ci biir dëkk bi di dem di yaxantu foofa di am luñu mëna japp ba téye suñu ngor bërepp bi nga ñëw nak di fi def rapportage mooy bërëbu dëgg bi muy armée li ku ko wedd nak bo bo fi boo fi duggee boo fi duggé rek wala buma lima jublu wax moy buñ la fi dencé rek nga xamni moy bërepp bërëbu dëgg bi da nga xamni yalla kenn la dañ ciy suñu bop rek di ci soñi mbokk talibé yi ci ñu góorgóorlu ci liggéey bi di ci woote ci ku am ciment fer biton wala saw ñaq nga def ko ci ndax day bërëb boo xam ne boo fi defee ñu def la fi boo fi defutit ñu def la fi kon nañ ci jéem a def bala ñu fee def mhm. ndax doomu bi ñaari ñaari ñaari biir rek la am benn bi mooy biiru boppam benen bi moy bammel <coughs> ta fi lo fi def rek dana la fekk ci sa bammel kon ñu ngi ciy woo ñëpp di ñaanal jëm ji nga xamanteni mo koy taxaw de serigne Omar di khalifa serigne bakki buso suñu borom yagal ko fi lol tamay ko wér alaykum wa rahmatullahi taala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jullit bi ni xeer baax wa ti leen ñaan yalla gënaaw suñu wax suñu wëru ñu wóoru nak na ndigal mom ndigal mom jëfër ndax suñu mom yëkëte kaddu bu noppi lépp moom doyoon na waaye ni foofu ñu sànni kàddu dañ ci di wax sëñ Omar Bousso Pastef bi am ci dëkk sëñ Mbàkke dëkk maam bi ndax li jaar ci doom du doom du li ma ñaan ñaan yàlla ak yéen sëñ Tuubaa li mu neex ak li mu bëgg yàlla sëñ Tuubaa def kaw suñu yàgg mi ngi ci euh, barabu sëñ Mbàkke bi ba mu ci yëg mu dugg ci jumaa ji la mu ci def ci mille quatre xun mu toll ñun di to am dem ci jàngukaay bi te leen lu ci ne kenn buy tàmbale dañ du àgg waaye nag alhamdulilah ñi ngi am yaakaar ba tey lu tàmbali ñu ak waaye ñi ngi am yaakaar de miir bi kay mi ko woote a bëgg naa buñ kasre màggalu gere passé ñu tàmbali ko waaye far aaji dikkal ko rek mu tàmbali ko ci gannaaw tabaski neen bi ñu ko tàmbalee mi ngi ñeenti million fii toll financé na lépp lépp mën na des na juróom benn million xam nga kooku mën kon yaakaar dan dan dan agré boobu léegi ñun lu commencé rek ñun ak way nag ñun ñong ngi ànd ak guddeeg bëccëg te ñaan yalla suñu borom li bu agee na simbal leen ak ci carte ak yeneen sim sim yëpp yëpp and te bu ñu ne mu dee ngërëm suñu bakki suñu ànd bakki suñu bakki loolu rek la ko ñaan fon gudd and ak ci bakki mo ko ak njëbal bakki suñu bakki loolu la ko yëpp jërëjëf salaamaaleykum ñu jëlat kaddu rek ngir señ bi leeral yu mbeggon ñu jotali ko muy képp ko xam ni suñu borom baaxee na la nga mëna a ci liggéeyu sëriñ bakki bu sa bobu ci kër gi ñuy wax muy armeli yi bo beugé jokk ak sëriñ bi na nga woté ci 593 76 593 68 50 wala nga jël numéro bi 77 287 81 60 wala nga jël benen numéro bi muy 578 586 07 26 ndigal laa ngi noonu. bismillahi rahmani rahim إلا العين بالمنتقى التوسلي يلا ويا من لا الحمد لله ننسى على الظهر اللي بتكون من بولي فين طبعا نجيب من كل كتاب كو كو كو كو كو كو كو كو محمد وآله وسبي والأنبياء واسكرته المقدمات ربيا